رتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين بك أبو طه محمد علي بن جي moo ñëwaat ak ci seen jotaayu wa rattilil qur'ana tartila ngeen koy suivre ci ahlul quran point wala ci compte youtube yi ahlul quran wala ci la maison du coran sunu jotaay bi wees ñu nekkoon di leeral eh, atteb mithlayni jaani mutijanisayn eh, kon ci jotaay boobu la ñu noppee woon ci buntub mithlayni ak mutaqaribeyni ak mutijanisayn sës rek nag fi mu ne ni ci buntub almad برم تيري بي تي بونتو خچ المد تي ولف موي خچ مو بونت داف كو نيت بونت با نينت اقسام المد موي خاج ليغا خامتيني خچ امنا كو تي القران احكام المد دي اتي خچ ام تي اتي بو خامن داكو بونتلات دي المد اللازم ليرال كو ليرال يو ام صلو kon buntu bi ñu jàkkar lol moy aqsamul mad al mad ci wala fo xon nak sank moy xëcc di nak buntu bu am solo ndax ni ma koy faral di wax rek ginnaaw maxaarijul huruf ak sifaatul huruf mom al mad danaka moy atte bi ëpp lu ñëw ci al qur'an ndax neewna na jàng ñaari baati al qur'an ba ag ci ñettel te do الرمب أك خش خش يو إنجا رمب القرآن لك بوك نيوتور بوك نيوي آتي سين تور دا ووتي وايا نوني سين تور دي ليلي نوني لسيني آتي دي ووتي برهم تيري والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب wala bidunihi alxurufu tujtalab nee wal maddu xëcc ci alquran asliyun am na xëcc goo xam ni madd asli leen tudd mooy xëccug cosaan wa farci am na beneen qism boo xam ne beneen xaaj boo xam ne madd farci la tudd kon dañ ci dégg ni kon xëcc ñaari xaaj la madd asli أجمد فرعي وسمي أولا طبيعيا نينا جيمون جك تدو للمد الأصلي تد كوتميت المد الطبيعي طبيعيا كون بني مد الأصلي ما مد الطبيعي بني مد الطبيعي ما مد أصلي نيوم نيار بين الله تمبلي تعريفنك لن ما مد أصلي لن ما مد فرعي mu ni waxu moom madd asli googu ma ni tudde ko tamit madd tabi'i mooy maa laa tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihi lxurufu tujtalab mooy gépp xëcc goo xam ni amul sabab ndax xëcc ci alquran léegi day am sabab sababu xëcc yi liy waral xëcc ci alquran ñaar lay doon hamza wala sukun dina gën a leer bu ñu agsee ci madd far'i waaye bu dee madd asli moom amul sabab ما لا توقف له على سبب أي المد الأصلي تمام مد طبيعي مم أمل سبب ولا بدونه الحروف تجتلب لو لم تجبلني مد أصلي أمل سبب بل ذات الحرف نجانج حرف بفنك خدش أم بفي حرف بيجوجي خدش دوت الأمت مرح أم نقول المد الذاتي lu tax mooy zaatul xarf nga jàng mu daal di xëcc waaye ginnaaw xaraf wi sababu xëcc nekku boo xam ne dañ naan moo waral xëcc gi loolu lañ tudde madd tabi'i wala madd as euh, asli moo tax mu tekki ne bal ayu xarfin gayra hamzin aw sukun jaa baada maddin fa tabi'i yakun xaraf wu mën a ñëw xaraf wu mën a ñëw bal ayu xarfin gayru hamzin aw sukun xaraf wu mën a ñëw ci ginnaaw xarafu xëcc wi te du hamza du xarafu sukun xëcc googi la ñu tudde madd asli kon saa boo amee xëcc ci alquran xool ko gis na ginnaaw xarafu xëcc wi hamza ñëw fa ginnaaw xarafu xëcc wi xarafu sukun ñëwu fa madd googu la ñuy tudde madd asli te moom moo tudd tamit madd tabii kon mu ne bal ayu xarfin xaraf wu mën a doon gayra hamzin aw sukun woo xam ne du hamza du xarafu sukun tamit jaa baada maddin woo xam ne ñëw na ginnaaw xaraf xëcc ci yeneen xaraf yëpp nee na fa tabici yakun xëcc googu day nekk almadd attabici almadd attabici ma ngoog da nga fekk ci alquran lu bari mën na ci jox misaal mel ni baatu qaala qaala madd tabiica fa nekk maliki madd tabiica fa nekk arrahmaani madd tabiica fa nekk ndax bu ne qaala ñetti xaraf nekk ci baat bi qaaf alif gi ko xëcc xarafu xëcc wi ak laam laam gi moo nekk ci ginnaaw xarafu xëcc wi kon du hamza laam googi nekk ci ginnaaw xarafu xëcc wi sukuunul kon ñaari sababi xëcc yépp nekku fa loolu la waxoon ni bu xewee rek madd lan la asli zaatul xaraf jëmmi xaraf yi nga jàng fi mu ne nii boo xëccul woon rek baat bi day manqué ndax qala ngay wax boobaa dafa am xaraf yu manqué ci biir baat bi kon xaraf madd tabi'i da ngaa jàng aw xaraf rek defoo la lu lu weesu loolu mu nekk ci qaala arrahmaani moo ci nekk boo xëccul rek arrahmani ngay wax te boobaa baat bi day wàññeeku ndax ginnaaw xarafu xëcc bi nuuna fa nekk woo xamante ni sukuunul moo tamit تيقول توبوا قلوبهم الذي قيل الكتاب آه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى فيه موجنك هدى للمتقين الذين يؤمنون الذين موجنك يؤمنون بالغيب ما يجب أي من الطبيعي لي نخ قلنا حرف خدشوي همزة نيوفة حرفه نيوتمت سكونه كن مد طبيعي تماي جيتو المد الاصلي ليرنا ماي بيب خيتي بو خامني تي القران نيونا تفك حرف و توب تي حرف خيتي ودو همزه تجمع حرف و توب تي سكون المد الطبيعي مني والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مسجله wal aaxaru ganeen ga ganeen xeetu xëcc gi comme wax nañ genn gi mooy asli ganeen ga tuddoon na ko mooy farc yi kon farc yi moom yi lay taarif moom lay wax mooy lan wal aaxaru alfarciyu nee na gu a gu ganeen ga mooy alfarc yi moom mawquufun ala sabab day taxaw ci lu ko waral day taxaw ci sabab dafa am lu koy waral la koy waral ka hamzin comme hamza kon madd farc yi léeg-léeg sababam li tax ñu xëcc dee doon hamza aw sukun wala sukun kon mad fara ñaari sabab lam hamza sukun musjala yaani mutlaqan sukun gi moo xam sukun asli la wala sukun aarid la léeg-léeg xëcc ñëw sababam di sukun te sukun gi ko waral asl la ci xaraf yi mu nekk léeg-léeg mad ñëw sukun waral ko te sukun gi ko waral aarid la du asl la bu mu ci doon ci ñoom ñaar day dugg ci biir maddi far'i kon al madd al far'i mooy madd gi nga xam ne dafa am sabab te sabab gi benn ci ñaar lay doon hamza wala sukun ak sukun gi nu mu mën a doon moo xam asl la ci baat bi wala far'a la xurufuhu yani xuruf al madd xarafi xëcc thalathatun ñett la faiha nee na jàpp ko fii lafdi waay nee na mi ngi ci baatu waayin wa hiya fii nuxiha xarafi xëcc yi nga xam ni saa boo xëccee ci alquran rek benn ci xaraf yooyu la nee na ñetti képp la mooy xaraf yi composé baatu waay waay waaw moo fa nekk ak alif ak yaa kon xarafi xëcc yi waaw la ak alif ak yaa xalaas amul waneen xaraf yu xëcc ci alquran wu dul ñett yi nee ñetti ñett xaraf yooyu nag waxiyee ñoom ñett ñëpp dañoo daje fii ci baatu nuu xii haa nuu waaw ko xëcc xii yaa haa alif noonu la dajewaatu ci baatu uutiinaa na uu waaw ko xëcc tii yaa ko xëcc naa alif ولا أوذينا نعم الدجاج بعد نفا كون نيت بعد يبدا يجلس ني حروف المد يبدا نيو دجاج نيت بعد بعد بوتي نك او حرف كون نيوم نيت نيو نيو نيو حرف خيتش دو ينين حروف المد نيت الالف واو اجيا pour ñu حرف مد نك دا ماي شرط موم لا جانغلي تي بيتي جي mu ni wal kasru qabla al yaa wa qabla al waawi dam shartun wa fatxun qabla alfin yultazam wal kasru qabla al yaa yaa gi xëcc kasra daf koy jiitu shart la bu ko kasra jiituwul rek dootul nekk yaa maddiya ngeen gis ci alquran yaa ay mu ñëw lu bare bare bari waaye du fi mu ñëw ñëpp fi mu ñëw yëpp xëcc kon pour mu nekk xarfu madd faw kasra daf koy jitu misal ñu joxe sax gis ngeen u ziina zi ya mo xëcc gi waye dal gi da kasra moo tax mu ne wal kasru qabla al ya wa qabla al waw dam bu dee waaw nag dam ma koy jitu pour mu nek harf mad dam ma koy jitu pour mu nek harf mad lu melni u gis nga ko fofu wala qulu gis nga ni waw dafa xati qaf xati lam ñaar yep qaf gek lam gep dafa dam waaw ñëw nekk xarfu xëcc wa fatxun qabla alfin yultazam bu dee alif moom fatxaa ko jiitu pour mu nekk xarfu mad kon yooyu ay charte la ci xaraf yooyu pour ñu nekk xuruuf maddiya bu charte yooyu jógee laneen lay doon waaye dootul nekk te xarfu mad mu ne walliinu minha alyaa wa waawun sukkina in infitaaxun qabla kullin uclina léeg-léeg nag dinañ nekk dinañ génn ci xarfu ma di nekk xarfu liin nga xam ni xëcc ga ca am boobaa madd liin lañ koy tudde nee na kañ lay doon ci yaa lay amee ak waaw wa liinu minha liin ci ñetti xaraf yooyu alyaau wala alyaa yaa la wa waawun ak waaw sukkina bu dee des leen a sukuun in infitaaxun تفتح قبل كل أعلنا نو جيت الكتبين بنك تنيوم نيار ما نام حرف خط يك دوخنا ني نيت لا نيوم نيت كون تاك امغا شرط بي تاك نيك حرف خط ما امنا خيتو ماسك غولاي جيتو nga dog nek حرف خط واي امنا تي نيار يو خامن دي واو يا نيوم دي دن نيو ليلي سكون تفتح جيتو لين تيم جانغي نيت بو جانغي ليلي داغي دغ خط lu mel ni xawf bayt wala liin mahmuz ci njàng warsh shay'a wala sawaatikum foofu danga gis ni waaw gi wala yaa gi dafa sukun wi ko jiitu daa fatxa waaw googu liin la bu dee yaa gi tamit yaa ul liin la loolu la jublu ci wa liinu minha al yaa wa waawun sukkina liin ci ñetti xaraf yooyu waaw la ak yaa ci ñaari charte lañ koy doone sukkina mooy gu njëkk gi mooy dañ leen sukuun in infitaaxun qabla kulli kullin ulina mooy bu ñaareel bi mooy ñoom ñaar ñëpp la leen jiitu xaraf wa jiitu nekk xaraf boo xamante ni dafa dafa fatxa kon loolu moom dafa war a leer naññ kon buntub aqsaamul madda ngi noonu di eh, eh, xaaji xëcc yi wax na ni ñaar la asli te mooy tabi'i ak far'i asli leeral na ko nee mooy xëcc goo xam ni du am sabab bal jëmmi xaraf yi nga jàng mu xëccaale te ni nga koy gën a xàmmee mooy ginnaaw xarafu xëcc wi hamza du fa ñëw xarafu sukun du fa ñëw waneen xaraf wu fa ñëw nag woo xam ne du hamza te sukunul rek da ngay xam ni xëcc googu madd tabi'i la te mooy al madd asli waaye tamit leeral na far'i mooy xëcc goo xam ne daa am sabab te sababu xëcc ñaar la hamza wala sukun sukun googu moo xam sukuunu cosaan la ci xaraf ba nekk wala sukuunu eh, aarid la ànd ak ni ñoom ñaar dinañ am wuute bu dee sukun gi sukuunu cosaan la xëcc gi am na nu muy tudd madd lazim lay tudd bu dee sukun gi du cosaan aarid lay tudd dee gën a leer ci eh, jotaay bii di ñëw waaye ñu xam ne rek ñaari sabab la madd farci am hamza ak xarafu sukun ci ginnaaw xarafu xëcc hamza ak sukun jamil moom madd Euh, madd nag bi sifa amma xëcc bi sifa amma moo xam far'i la moo xam asli ñett xarafa koy def waaw alif yaa moom la dënk ci baatu waay ñoom ñoo ñii pour ñu nekk xarfu madd waaw gi faw damma daf koy jiitu day sukun damma jiitu ko yaa gi day sukun kasra jiitu ko alif gi day sukun euh, fatxa jiitu ko bu fekkee nag waaw ak yaa moom dinañ nekk liin ci ñaan charte ñoomit it mooy dañuy sukun ba pare fatxa jiitu leen joxe naa ci ay mithal sank kon suñu jotaay bi di ñëw incha allah dinañ dugg ci ahkamul mad seen mbokk loon Abou Taha ci seen jotaay warattilil alquran tartila ngeen don ko suivre ci ahlulquran.com wala ci compte youtube ahlulquran wala la maison du Coran alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,